politique avant ñuy xuus ci li nga xam ne wala ñuy xaar mooy euh, le remaniement ministériel xëy na ça va se faire d'une minute à l'autre euh, présidentielle bi euh, jamono jii nii gis nañu que ne parrainage bi nit ñi tàmbali nañ ko et que on a désigné les délégués au niveau des des régions et autres yow nga dëkk Tivaouane mm, ma fort que ne le collectif des maires amoon nañu benn rencontre mais Diagne si Mbengue euh, gisuñu ko ci euh, qu'est-ce qui s'est passé alors ma ma féliciter d'abord le délégué régional suñu papa maam Bounama Sall bu mhm. parti socialiste moom lañ désigné dem moom ak Augustin ak Mbaye Dione ils ont dirigé la réunion de fort belle manière ak le ministre Oumar Youm si bien qu'on a tenu une réunion cadre à Thiès pour joxe la bonne information pour se déployer mm -hmm. comme ils nous l'ont demandé au niveau des communes pour mm -hmm. que et chaque dans chaque focal pour ce qui est du, du parrainage parce que l'autorité politique par excellence naturellement c'est le c'est le maire mm -hmm. mais la question elle répondre nga sa bopp tu m'as dit le collectif des maires s'est réuni moi je ne suis plus maire mm-hmm. muy benn euh, collectif des maires je salue cette initiative de mon grand frère Demba Diop bi nga xam moo ko moo mm-hmm. pour que seeti yenn ministères yi récemment seeti nañ ministre de l'éducation mu may leen ay tablement yi nañ des maires qui de l'APR ou bien qui sont du Benno Bokk qui sont du Bokk Yaakaar. donc c'est une instance effectivement boo xam ni am na njëriñam. mais suñ demee nag. ba mu ça tous les maires de de Tivaouane. tous les maires a dix mënti bokk. parce que réunions yi ñëpp ñoom ñoo ñoo ci ñoo ko tax a jóg kon. alors loolu mooy li ko war a tax a jóg maintenant euh, démb bi ñu jógee ci euh, réunion bi effectivement euh, au niveau de la région comme j'ai dit on a dit dans chaque commune le maire me convoque en tant que maire kenn Mm-hmm. Demba Diop c'est mon grand frère c'est mon c'est mais quand maintenant le collectif des maires bu fekkente ni li ñu gis bëgg na transformer en instance politique mm-hmm. loolu day doon beneen beneen mm-hmm. c'est pourquoi nous avons jugé que comme on a reçu les instructions de travailler au niveau de chaque département moi effectivement quand on a quitté cette réunion j'avais même une autre réunion avec quelques amis de l'APR parce de l'APR il faut que waa APR ñoo a gën a taxaw donc man si dynamique boobu laa nekkoon démb di rencontrer mais en tant que responsable de de Benno la a des difficultés sur le sur le fonctionnement la preuve que je vous donne mhm. nous une assemblée générale de l'APR dans le département de tey amul benn maire bu bokk APR boo xam woowu ma la amul mhm. kenn koo xam mënuma la ci woo ba ci président conseil départemental koo xam mënuma la man di woo parce que man nag table maam Abdou baax la mhm. maanaam ñun dañu dañu dañu jàngal mhm. ñu wàcce ñu wàcce suñu bopp et mhm. puis kilifa aussi noonu lay noonu lay doxale maintenant maintenant quand il de politique je pense que am na loo xamante ni nii ni mu war a doxee bu ko doxeewul man nag je ne suis initiative mais ku nekk libre nga jël sa initiative mais am na initiative yu may bokk ak wala doo xaar doo xaar. implication parce que boo seetloo élection yi passé da nga da nga jiite woon lépp. exact tey jii nii voilà ni mu tëddee est-ce que amul. voilà euh, beddit un peu. Euh, xam nga ñun nag on a un temps pour la politique. un temps pour le travail parce que mhm. au-delà de la politique dañu dénk loo xam dañu ci war a def résultat alhamdulilah mhm. comme je l'ai dit tantôt ñu ngi ciy def ñu ngi ciy def mais bu politique jotee mhm. ñu dénk ñu responsabilité en tout cas ñu nekk département Tivaouane y compris tous les maires là nga xamante ni comité électoral départemental bi passé mën leen ci jiitaloon xam nañ ni dama koy jox ak xam c'est-à-dire lépp lu mu laaj ci sama man-man ci sama lu ma mën ci sama wàllu alal sama temps sama doole dama ko ci euh, dama ko ci dama ko ci def mais man je n'attends pas qu'on m'implique je pense que quand on parle de l'APR et du Benno Bokk Yaakaar dans département de Tivaouane je fais partie de ceux qui prennent bien des initiatives et je comprendrais bien effectivement quel que puisse être le, le responsable mu gis ni y des idées ñu toog en cercle restreint waxtaane ko xool ensemble naka la ñuy doxale mais man kenn du ma rek ci mbir boo xamante nii xaw ma ordre du jour bi mm-hmm. xaw ma lan lañ fay waxtaanee mais honnêtement pour pour vous dire vrai je n'ai aucun problème individuel avec eux ku si nekk dama lu ma warloo ak yow ci relation am nañu ko et je les encourage ci collectif des maires boobu nañu ko taxawalee pour mm-hmm. am pour mu nekk nekk interlocuteur avec le gouvernement mais pour ce qui est en tout cas des instances politiques en tout cas am na beneen doxalin boo bokk am